donc a rappeler que vous suivez toujours euh, 13 minutes de vérité ñu am mbégte di fi recevoir euh, Gallo Tall bu parti démocratique euh, sénégalais conseil municipal également mairie ville euh, bu Kébémer ba tey ci wàllub actualité grand juñu nga ko sànq ki nga xamante ni moo di Karim Meïssa Wade nuyu nga ko mais également keroog bi nga ko gisee ci match Sénégal Pays-Bas qu'est-ce que ça t'a fait Karim benn mine bu euh, bu heureux. jovial euh, sénégalais d'art ko tamit également photo ak moom selfie et tout. absolument et puis non non j'ai été vraiment content. Mhm. parce que Karim du nu tëll rek mu ne damm na content ci deux choses content pour sa patience xam nga lu tax. parce que Karim est parti au Qatar. il y a des mauvaises langues qui disaient non kii dañ ko faa tëj nangam mais kii ku ko xool xam ne du ku ñu tëj Qatar kii ku ko xool. xam ne léegi dem na sax ba c'est par le fait du travail colossal qu'il mène ba ses yeux sax doxatul boo xoolee xam ne verre mi yóbbu la sol c'est-à-dire il est trop dans les dans la paperasse ci papier yi ci ordinateur yi il ne fait que travailler c'est ça la réalité kii boo ko xoolee xam ne si il a une mine vraiment bu extraordinaire et puis suñu contentement la parce que ñun en réalité dafa am lu ñu nekkee mooy comme li ñu nekk il est au Qatar ñoo nekk dans les plateaux wax sénégalais fii leen fi Karim fi fi leen Karim suñ toll ci Karim mais yàlla comme ni ma koy waxee je fais très bien les choses jël benn échantillon ci Sénégal yóbbu leen ci Karim ndekete Sarim Karim foofu lay xamee ci par rapport ak échantillon boobu fan la Sénégal yi toll ci moom mais ñun ñu ne fi mu toll ci Sénégalais yi donc yàlla boole na loolu looloo jur mbégte mu rëy mi nga xam ne que Sénégalais yi am nañ ko ñu nekkoon foofu ak ñi fii ak ñi nekk fii ba tax na euh, am na ci ñoo xam ne si euh, j'en profit pour en parler parce que amoon nga fi benn invité fii et je l'invite à à vraiment avoir raison gardée parce que mënoo nekk sur les plateaux nekk fi un tiktoker à un certain moment nga ñëw jege un responsable de la trempe de Ousmane Sonko toog ci plateau di wax waxi dof. kan Diop Taïf je m'adresse à Diop Taïf mais yow yaa Karim Wade yéen a bokk une même coalition et je crois que ni bu fekkoon am nga benn xam-xam ci politique du un membre de PASTEF mooy toog dans un plateau pour sànni xeer Karim et je l'ai pris de ne pas commencer sax parce que bu ñu dee sànni xeer ñun ay xeer la ñuy doxantoo ko sànni ko dañuy yomb donc je crois que ni sur ce terrain la qu'ils ne s'y invitent pas nu on les invite pas sur ce terrain ñoom bu ñu dugg foofu parce que qu'on n'acceptera pas que Ousmane Sonko ak Karim bokk une même coalition les gens de la même coalition génn di sànni xeer non non su ma nee rien n'est acté pour mu jeex parce que ñoo bokk li ñuy def au niveau de l'Assemblée nationale te ba léegi dans la mémoire des Sénégalais loolu lañ jàpp li ci des nag après bu dul loolu bu dul loolu sax c'est-à-dire bu dul loolu aucun membre du PDS ou bien aucun partisan de Karim Wade tollul fu muy waxee Ousmane Sonko lu metti ay ñoñam kon ñoom buñ ñu ko def donc toog ci plateau bëgg a wax pour bëgg a wax bëgg a feeñ pour bëgg a feeñ gën di yàq Karim Wade n'importe ko kooku duñ ko may kenn te qu'il le sache pour di fu mu waxee lu faanawul ci Karim Wade dinañ gën dindi ko ba mu set parce que en réalité au niveau du Sénégal ñu fi hmm. metti na ñu fi metti bari na mais au niveau de la diaspora ça leur a fait mal je prends l'exemple d'une présidente de mouvement de soutien à la personne de Khady Saliou Sène moom elle a vraiment elle a mobilisé tous tous ses partisans dans les Pamel pour tontu lu mel noonu métti ko ak ñeneen ak ñeneen parce que les gens ne cessent d'envoyer des messages de deniers euh, mu jóge fa dem toog fi nga xam moo di ah, Qatar nee ki nga xamante ni nee na koo xamante Euh, tey jii sénégalais bañ nekkee ci jafe-jafe dégguñu ko mu wax ci mu ngi toog tranquillement au frais foofu ca Qatar jàpp na ne ñi dem di photo ak moom sa ñooñu dañoo ñàkk fayda Moustapha wax loolu très bien dama ko gis ci beneen plateau pour man waxu ko woon fii ma doon réserver réponse pour plateau boobu mais comme wax na ko fii ma ñëw ci moom benn dafa ñàkk fayda ñaar bu fekkee li muy wax dëgg la na génn ci wax wax ñu bi Karim bi ñuy xeex ñoom boobu Karim ñaataat la fan la nekkoon lan la doon def ak moom fan lañ ko mos a tëj bu fekkee li muy wax dëgg la bi muy qualifier le parti de du de du président Macky Sall de fan fans club boobu ñu doon xeexal Macky sàll fan la nekkoon bu fekkee li muy wax dëgg la ñu doon xeexal Macky sàll bi Macky sàll fa la moom li mu ci am ñooñu amuñu ko ci. xam nga manque de respect au Sénégalais manque de mooy ku ne am na droit wax non non non moi je dama jàpp ni sax Diop Taïf dof bu ndaw la mais bu mag bi mooy Moustapha Diakhaté c'est ça la réalité ah parce que manque de respect au Sénégalais weesuwul les Sénégalais kilifa la c'est-à-dire weesuwul kilifa la def yëfi kilifa quoi parce que kilifa euh, il faut nga yor comportement bi wala nga wax wax kilifa nit sooy wax dans un pays da ngay wax loo xam ne day defar wala loo xam ne Sénégal mën na ci jàpp mais koo xam ne si on est nga bëgg a qualifier des sénégalais yi nga xam ne yàlla xam ne la majeure partie ne sont pas du parti démocratique sénégalais ce sont des sénégalais bon teint mais dem nañ xam nañ ni kii kat en réalité gëdd bi mu am au niveau de Qatar personnalité bi mu fa am kii le Sénégal mérite mérite mérite ce Karim Wade c'est la la c'est la raison pour laquelle bi ñuy photo ak ñoom non il avait un Sénégal dana benn message bu ñu ko doon euh, souffler à l'oreille et vous l'avez entendu. D'accord mais il faut que tu reviennes au pays te loolu yàggatul incha il va revenir dans ce a tuuti da euh, mu demee Qatar ba tey gisuñu ko mu tegaat nankam fi de ci réew. Mhm. bi nekk nañ ci ay jafe yéen yàgg ngeen ko soxla ci seen wet ba soxla ñëwul. Mhm. est-ce que tamit moom sëñ Moustapha Diakhaté xawul wax tuuti dëgg ci côté boobu. non non non non ci mutisme bi nga xamante ko fa ca Qatar non ci moom sax xam nga du Karim bi ñuy xeex nekku fi yow bii nga nekk nii Moussa Diakhaté leen rek laa koy laaj avant muy dem pouvoir fan la dëkkoon na ko wax sénégalais yi bi mu toogee ci pouvoir fan la dëkk léegi avant ñuy dem pouvoir bu daan feeñ ci télé yi lan yan yan habillement la daan def bi mu nekk ci pouvoir lan lay def léegi lan moo waral loolu. une richesse acquise au profit du pouvoir c'est ça la réalité kon en réalité profité au pouvoir ci la bokk na may Karim Wade jàmm. cest à moo gën a sedd ci moom parce que aussi bon vraiment bëgg na ñun bu ñu toogee dans le plateaux que li nekk suñu xel ñu génn ko pour l'intérêt des Sénégalais c'est ça la réalité. bëgguñu fekk ñi nga xam ne parce que Karim xam nga Karim Karim. nous sommes en démocratie euh, mais je d'accord. moo waral réplique bi Karim dafa neex a xeexal dafa neex a tontu. du ko nga gis ci bo ci ci boîte du ko nga gis ci baar boo doon wër yàmbaa këram doo ko gis je bien. soo doon wër yàmbaa kër Karim doo ko gis il est lucide il est sain et ku xam lu muy def la du mandi soo ko wax merci. kan mooy mandi soo ko wax. ñii mandi soo ko wax ñii wax wax ju bari. non mais grand yow tam nag yaa ngi wax la sax de instant. waaw waay booy. mais kan euh, mais quand euh, Karim. lu mhm. waral bu mu ñëwee euh, en tant que tey jii Macky Sall son. frère euh, euh, libéral lu tax tey jii demul peut-être nuyu ko ci loge yi non xam nga euh, Karim n'est pas dans la politique politicienne te du saytaane Karim n'est pas un hypocrite c'est ça il faut que nit ñi xam loolu. c'est quelqu'un de nee na c'est parce que amu foon accès. non non c'est supporter yi mais ku xool stade bi ni mu bindoo saytaane wu ma nag ku xool ni stade bi bindoo. journaliste ya fa nekk man rendre ma compte personnellement fi Karim jóge ba fekk leen foofu ku amul gëdd foofu doo fa jaar ku xool ni stade bi bindoo mais Moussa Diakhaté bu waxee loolu Karim stade ba ba mu daj Qatar bi yëpp benn président fa nekk mooy bosam mooy sunu bos sax mais mooy patron kenn yëgul ni ma nga fa Karim Wade mi président lañ gën a ràññee ni ma nga ci stade ba donc je crois que wax yenn wax yi tuutal sa bopp la ak wax yeneen wax. nag naan ay gise nañ gisu gisewuñu te je donne une information de taille. ayca y des personnalités yu nekk ci pouvoir bi. gis nga selfie xale yi doon def ak Karim waaw mais ndekete ñoo ko gënoon a nam ak Karim. mais réalité xam nga lan mooy teel lan moo nekkoon mais quand même ñoom seen image fuitewul. mais du fuité parce que borom ma bañ image bi nu soxloon moo bañ. ils ont voulu prendre des photos avec Karim. Karim leur a comprendre eux ils de la politique. ah bon ah oui je citerai pas de nom pour l'instant parce que xam na nañ seen bopp mais ñi ngi dem nañ Qatar kii bokk na délégation bi kii bokku ci ils ont voulu prendre des photos avec Karim Karim a dit ñett c'est ça une personnalité parce que en réalité les gens ne peuvent pas quitter ici ñëw di yàq sa der kii naan gis nga diw fii gis nga ci coulisse bii ay subordonné di photo woog yow nga koy nangu xam nga boo ko nangoo lan lay jur non dañ lay nekk deuxième match bi keroog kenn gisu ko lu waral wax sa der non kenn du parce que amul ñu naan li ñuy saluer mooy ci tax amul ki tax amul mooy ndey billi gi waa ji gosu bi big Karim d'accord